jàmmi senegal mu ngi ci ki jiite réew mi képp ku mën di wax te waxoo ak ki jiite réew mi jàmm du gaaw a am jàmm ji mu ngi ci loxoom ñi jox takk der yi ndigal moo leen jiite ñi bëgg a jàpp Ousmane Sonko ci lu yoon moo leen jiite xale yi nga xam ne dañuy génn di fight for their right moo leen jiite réew mi nag buñ demee ba nga xam ne xale yi ñoo ñemee génn di wax dëgg mag ñi noppi war nañoo xoolaat bobu réew gis nga boo noppee ne waxuma xamal ni ay du yem ci bopp boroom dafa mel ne nga dugg ci oto ak i nit oto bi di waaj a këpp nit ñi di def effort pour oto bi bañ a këpp yow nga croiser say bras nan sama yoon nekku ci cey bu oto bi këppoo di nga xam ba xam sa yoon nekk na ci wala sa yoon nekku ci gis nga musiba du yem ci bopp boroom xoolal ñaata mbir moo yàqu ci procès yoo xam ne ay caaxaan rekk moo ko lal ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaata nit ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu démocratie mu ngi jooy te ñi ko waral matuñu un pour ci Sénégal ñoom ñooy lekk suñu alal di ko sàcc ñoom ñooy jël ñi ñu waroon a aar di ko défendre seen bopp mais lii duñ ci wax mu jóge fii ci senegal sénégalais yi dañoo sonn s'il vous plaît képp ko seetaan vidéo bi da bind ci commentaire yi fii Sénégal ñoo xam ne Sénégal dafa bëgg liberou.